kàdduy cant ak ngërëm sunu waajur sëriñ Moustapha ibnu Cheikh Abdoul Ahad Serigne Moustapha ibnu Cheikh Abdoul fi mu daaneele kàddoom sëriñ Mbacke Anta wuutu ko ci kàddu yu rafet yu sell ñoo ngi bëgg du rafet lu jataay bi di nuyu sëriñ Abo mi nga xam ni mooy xalifa sëriñ Modou Mamoun di ko sant di ko gërëm lii fi daje lépp moom la jëfam ak liggéeyam ak pas-pas ak yéene jum am ci dëkk bii di Daaru Salaam la ko yàlla faye bis bii bis bii nag taalibeem doomam xaritam soppeem muy sëriñ Abdoulaye Dia moo ko waral mbokk yi damay wax ni ida araada allahu bi abdin xayran fataha alayhi baabal amal wa axlaqa alayhi baabal jadal yàlla bu namee dimbali nit ci aw yiw da koy ubbil buntu liggéey Abdoulahi nag jëf jii mu am tey te amee ko ci ndigalal kilifaam muy sëriñ Abo Mohammed ibnu sëriñ Modou Mamoun xolam sedd na guy Abdoulahi moom Moustapha Ndiaye yàlla moo leen boole yàlla nag al arwaahu junudul mujannada fa ma taarafa minha taarafa wa ma tanakara minha tanakara ruu yi bi leen yàlla bindee da leen a ci azal da leen a dugal ci benn caserne caserne boobu mu leen dugal ci ngay gisee nit ñëw ci àddina gis kenn rek yàlla boole leen ñu mel ni ñu bokk ndey ak baay mel ni masuñoo tàqali ko loolu moo leen dal ñi fi daje ñëpp di ay wëllëre di ay xarit di ay soppe ñi ngi leen di nuyu ci turu Serigne Mame Mor Diam yi nga xam ni mooy kilifa ak Ablaay mooy baayam mooy magam mooy léppam ànd ak sëriñ Moustapha Dia nga xam ne moom fu sëñ Mamor teew rek amatu fa kàddu lii nag jëf ju rëy la ndax salaasa tijaaraatin laysa maaha xasaara ñetti commerce mi ngi nii dama koy faral di wax lu bari amul pertement ñu ni ban ak ban muy tilaawatul quraan jàngar quraan te ab lay fii ci daaru salaam tey jii lañ mën a fesal jëf jii man koo génne waaye am na daara ju rëy joo xam ne def na ko fi def ko wax fu ñu fay jàngale ngir yàlla ay milliers de personnes di fa mokkale al quraan mokkalee ba pare di fa jàng xam-xam def na ko fii ci Daaru Salaam beneen bi ci des mooy iqaami salaat taxawal julli ku ne xam ne ni jumaa ji nga xam ni moom lañuy bëggee bëgg a tey moo ko jëfal yàlla jëfal ko boppam beneen bi ci des mooy al infaq fi sabilillahi moo joxe ci yoon yàlla ñett yooyu yëpp mook doomu ndeyam ji ci loolu lañ nekk Sëriñ Tuubaa dafa wax ni yasmau xaraa niaalihim isaamaatu xoraamu nit ki bu génnee àdduna ña ko suuli buñ ko wanee gannaaw bi dégg seen tëppi tëppi daal la li ma ciy tegte la mooy Baye Omar Dia mi tëdd fii di waajuram li ñuy wax lépp ñu ngi koy dégg jëf jooju nag dafay dugg ci sadaxatin jaariya ndax yonent bi dafa wax ni léegi isa maatal insaanu in xata amaluhu ila min salaatin sadaxatin jaariya aw ilmin yuntafaw bihi aw waladin saalih sadaxatin jaariya googu mu def nag jëf joobu yëpp day delluwaat ci Baye Omar Dia mi tëdd fii ndax amul lu dul Daaru Salaam tey jii fee mu tëdd siggi na bég na kontaan na xolom sedd na ndax way dawlu yi way dawlu yi bépp jëf boo xam ne seen doom jëf na ko ni facteur bii di jëlee leetar di ko yóbbul ki ko moom jëf jooju noonu lañ ko indile waajur wi bu ko defee ñëpp teew ndax foofu kumpa amatu fa ñoo di indi jësi Ablaye jumaa ji moo ko tabaxal sëñ Modou Mamoun tabaxal ko Mame Cheikh def ko ci dëkk bi nga xam si ne mooy dëkk Serigne Touba bi njëkk kon ñi ngi am mbégte di am kontante di nuyu ministre de l'intérieur démb dégg naa sax ku lay classe di la saagaak yooyu waaye bul tontu bul faale bul lijjant yow taalibeb Serigne Touba nga taalibeb Serigne Touba du xaste du ŋàññee du wax lu bon du wax lu ñaaw continuer ci ñooñu. jërëjëf Serigne Pape Cissé yi rafet na. fa tabaarakalaw bëgg nañ ci yow. yow boo fi teewee mel nañ teewaawoon gépp fi teew. ndax yéen li leen booleeg waa kër Serigne Touba Thierno Farimata Mati Mbacke Ousmane Thierno Farimata Mam Maram Habibullahi Mouhamadul Kabir Saïd Ousmane Alaaji Seexu mu jëgoon Fuuta te déggul woon wolof mooy sama am. boo ko toppee mu dem ci sëñ nga dem ci hmm. beneen côté bi Serigne Touba Mame Mor Anta Sali Mame Balaye sa Mame Maram kon fii nga ñëw sa kër la ñu ngi sant ñu fi teew ñëpp Ablaye mi ngi sant xaritam yi di sant soppeem yi di leen gërëm Mbay Saar cant kooku ak ngërëm loolu ab Ablaye nga koy teg sa di ñaan nga tegal ko ci mboolem ñi nga xam ni ñoom ngeen bokkaloon liggéeyu Serigne Touba bu mag boobu laay bëgg na ci ñi fi teew ñëpp xolam sedd na may nuyu ministre Galoba di sama rakk di sama xarit sama mbokk Moustapha ñu bokk Louga bokk Saxawar Fatma hmm. maa ngi koy sant di ko gërëm di sant ñi fi teew ñëpp ci turu Ablaye kàddu yi nag gàtt na liñ bëggoon a wax yaatu na sëriñ Abo lii nga def sa mbokk yëpp daje ci yow lii mooy àdduna sëriñ Tuubaa dafa am mbokk yi gën la sëriñ Tuubaa am yonente yàlla Yuusufa mi mi nga xam ni keroog ba mu géntee géntam googu ñëw nettali ko ay waajuram waajuram dañu ko laa tax su ruyaaka alaa xiwatika lii nga gént bu ko nettali say mbokk lan moo ko waraloon xam na ni bu leen ko nettalee ñu faagaagal ko sëriñ yàlla da jox mbokk yu